noo ngi leen ci ndokkeel bu baax di ñaan yàlla nu fekkewaat ko ndëgë ni déwén te mu ànd akuk dal akuk tal loolu yomb na yàlla di yëkkati ay kàddu rek yoo xam ne baaxoon nañ ko yëkkati ci bu bis bu mel ni bis mel nii bu amee kàddu yi kàddu yi yeete rek lay doon kàddu yu soññee rek lay doon ci li ñu fi indi te bàyyi nu fi te mooy diine lislaam ginnaaw dañoo waroon di daje bis bu set di ko waxtaane wala weer wu ne ñu di ko waxtaane bu mun taam kon war na at mu neenu di ko waxtaane ba kenn ku nekk yóbbuloo ci loo xam ne su ci sa xel demee sa xel delluwaat gannaaw yokkaat sa ngóorgóorlu xam ngeen ne nag jamono bii nu toll jamono bu metti la bu doy waar la nu di sargal imaam ak imaam yi yépp ci seen taxawaay yi mettik jamono taxu leen a dellu gannaaw taxu leen a yox yoxu yox yoxi taxu leen a bàyyi lañ jàppoon kon noo ngi leen ci sargal bu baax te di leen ñaanal yàlla yàlla kàttan na leen te dëgëral leen di siyaare tey sargal tey ñaan tey ndokkeel Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na yàlla dëgëral ko te kàttanal ko kilifaa ngi noonu gu mat kilifa gu doy yaakaar bu dal xel goo xam ne gi képp koo xam ne mooy sa kilifa te nga dëggal sa digganteeg moom sa nag sa àllaaxira lépp fay jag mate na ko ci wàll yépp yàlla na ko fi yàlla bàyyil te dëgëral ko te kàttanal ko ba li bëgg a liggéeyal lislaam bëgg koo liggéeyal yoonu murid bëgg koo liggéeyal sëñ Touba yàlla defal ko ndimbal ba mu àggale ko na mu ko bëggee ba naal yeneen naal ci barkeb sëñ Touba yàlla man na ko yàlla na ko def di sargal bu baax borom xam-xam yi ndax metti jamono taxu leen bàyyi taxu leen dellu gannaaw tàmbalee ko ci al muqaddamatul xidma bi nekk ci jumaa ji taxawaay yi rafet na lool yëg nañ ko wante al wafa bi nekk daaru moxti taxu leen naqari jamono taxu leen deltu gannaaw al minanu euh, al académie minan bi nekk euh, daaru minan bu sëñ Muntaxa seen taxawaay gis nañ ko julli yëpp yëg nañ ko kon nañu xam ne forotul ayn bu kër sëñ Chouaïbou wala yëg nañ leen bu baax daaru salaam yëg nañ leen bu baax mboolem jàkka yi gédde fu fi waay nekk te doon yëngu yëg nañ yëngu bi bu baax tax na suñ xel dal bu baax xam nañ ne naqarik jamono ak i jafe-jafe ak i tartar du tax mukk ngeen bàyyi seen warteef yàlla na yàlla kàttan nañ leen ñëpp yëg nañ leen sant nan bu baax a baax bokk jullit yi dañ daan wax ne bada al islaamu xariban wa sa yahudu xariban fa tuuba lil quraba dañ doon wax ne de lislaam de bi muy ñëw ku tumuranke la ba daal islaamu xariban fa sa yahudu xariban fa tuuba lil xuraba lislaam de mu ngi tàmbale woon ci tumuranke nee nag dana delluwaat ci tumuranke waaye bu woobaa nag ñi nar a texe ñooy ñi ànd ak li ànd ak lislaam ca tumurankeem googee waxtu wu nekk nag ñi ngi ko doon wax waaye defe naa tey jii nag la gën a dëggu nag tey jii xam nañ ne lislaam moom tumuranke ne bu wóor tumuranke boo xam ne gii kilifa yu mel ne sëñ Muntaxa yu mel noonu dong ñooy ànd ak lislaam bi tumuranke ji yàlla nañ bi tumuranke ji ah adduna bi de yëg ngeen ne soppi ko bu wóor te li ko soppi nag mooy yàlla dafa wax ne sahara alfasaadu fi lbarri walbahri bi ma amilat aydi nnas walinusir xawm baxar la si amilu laalahum yarjiun dafa wax ne gi ne feeñ yi feeñ na ci géej gi waaye bu ci kenn tuumaal yàlla nag nañ xam ne bi ma amila ay nnas nit ñi seen bopp ñoo ko defal seen bopp wala nu siqannahum wala nu siqom baxar la si yàlla nee na ma mosal leen tuuti nag ci li ngeen def lu ma jëy jublu mu ngir ngeen ngeen delluwaat xam ne fi ngeen teg seen tànk du foofu waaw xam ne fi ngeen teg seen tànk du foofu loolu la jublu kon nag tey yàlla wan nanu ko wan gu leer nañ ñi sëñ Saliou Mbacke yàlla yàlla yu koy leer dafa waxoon ne dafa waxoon ne ku ragalul yàlla de yàlla bind na loo ragal moom ku ragalul yàlla yàlla bind na loo ragal tey nag ñépp xam nañ ne yàlla bind na lu ragal lu ñuy wax korona coronavirus jaab feebar boo xam ne bët mënu koo gis seetukaay yu xereñ yi képp sax ñoo ko mën a gis ndax tuutiwaay ba yàlla bind ci benn tasaare ko ci àdduna ji ba tey kenn talatul dara ngir kooku kon xam nga ne kooku de soo koy tooñ ci ñàkk jom nga ko teg waaye xam nga ne ki mën a bind lu tuuti loolu mu daj àdduna lakkal àdduna witt kenn mënu ci dara kooku de war nañ koo bàyyi xel bu baax kooku nag dara waralu ko lu may sunu melakaan wa ma asaabakum min hasanatin fa min allahi waaye nag wa ma asaabakum min sayyi'atin fa min nafsika lu baax de loo ci am yàlla la ko jox waaye safaan nag loo ci am yaa ko defal sa bopp yàlla amut safaan lislaam de saa buñ ko tumuraankeelee yàlla moo koy fayul saa buñ ko tumuraankeelee yàlla moo koy fayul te loolu nag feeñ na loolu feeñ na bu baax ndax feebar bii de bi muy laataa ñëw ñu bari séentu woon nañ ni dana am luy xew bi bi mbir xew bi mbir mi laataa xew ñu bari tiitoon nañ ci ndax siin nga mu siin nga xam ne fa la mbir ma jóge xam ngeen ne diire ab diire ngi noonu boo xam ne lu mat nangami million ci ay jullit ñoom lañ dajale ne dañuy laawee seen yuur gi ndax lislaam gi ñu gëm lislaam bi waruñ koo gëm baaxut dañ leen ciy génne di def lu bon di leen bu ndoxataal àdduna bépp wax àdduna bépp wax moo leen leen dara foofee la virus bi tàmbalee waaye ba virus ba tàmbalee foofa kat bu leen jàpp ne bu leen jàpp ne ci ñoom lay yem ndax yàlla du yàlla du fayee noonu mbir yàlla du fayee noonu mbir wattaqu fitnatan la tusibanna lazina salamu minkum sa yàlla nee na ngeen di wattoo taal fitna ndax fitna saa boo ko taalee du ci yow mi ko taal musiba du yem ci bopp boroom noonu la ko olof di waxee loolu nag mooy la ca xew bañ taalee musiba bi ñoom yàlla def leen a waaye jullit yi nag ñoom itam taxawaay bañ war taxaw te taxawuñ ko ñoom it yàlla daf leen di nattu musiba bu ñëwee bu dalee ci ku gëmut yàlla alkande la bu dalee ci ab jullit nag nattu la waaye ñëpp a jot seen wàll nag su ma la ko bëggoon a misaal dama lay misaal ni soo faboon lu niin diw ko ci sa tànk sangaleñ yi sam ko benn sangaleñ moo la cay matt waaye boo dóoree téeméer ngay rey yàlla noonu lay fayoo yow mi defe ne bokkoo ci sax ci nga bokk moo tax itam gis ngeen ko alag na leen réew tubaab yépp alku tey alku nañ tàmbaleel ci Amérique tàmbaleel ci Siin ngam daloon tàmbaleel ci Italie Espagne réew yu mag yi nga xamoon yépp ñi xam defoon nañ ne weesu lañ fii ñoom la yàlla njëkk a toroxal àll leen ci microbe bi ñuy wax coronavirus. door a ñëw ñëw ci réew yu jullit yi Arabie Saoudite nag foo xam foo xam virus ba dem na fa def fa musiba moo xam ne mu rëy la ba ak suñ réew yi nu war cee jàngee lu bari nag yéefar yi war nañ cee jànge jullit yi war nañ cee jàngee wante sunu Sénégal géitam nag war nañ cee jàngee bu baax ndax coronavirus bi dugg na fi de waaye bi mu fi duggee tam am nay njàngar yu ñu ci mën a jàngate jàngat yi mooy bi mu dikkee de xam nañ ne jullit yi ànduñ duñ benn ware nañ ko seen doxin wane nañ ko seen waxin wane nañ ko seen jëflante te feebar bi moo moo ko feeñal wante euh, gouvernement bi nga xam ne moo fi nekk it war na ci am lum ci jànge lim ci jàngee mooy yëg ne doomu aadama yi gëmuñ ko te wóoluwuñ ko kon war nañ ko ci jànge bu baax war nañ cee jànge ne politiciens yii fi nekk nit lañ yoo xam ne yi nekkaluñ fi kenn seen bopp lañ fi nekkal ndax ba mbir mi xewee ba léegi kenn ku nekk la nga yor yaa ngi ne kat yiw jéemoo wax sax luy luy tax nit ñi am jàmm war nañ cee jàng itam ne sunu daara yi nga xam ne ci lañ bëgg a profité pour tëj ko yàqal julli yi seen diine te julli yi ne ci cell ñoom itam jéemuñ ci dara waxuñ ci dara kon daanaka tomb yooyu rek lay doon tubaab yi de yàlla toroxal na leen yaa ngi tàmbalee ci Amérique ñu bari dañoo yaakaaroon ne Amérique moom kàttanam àgg na ci fi mu maanaam bu ko neexoon mu daal di régler àdduna bu ko neexee mu tas àdduna léegi wante ci feebar bii yàlla wane na ci ak ñàkk kàttanam ak néew dooleem ak ñàkk xam-xamam ak ñàkk man-manam ndax ñi néew doole sax liñ ci mën a kës néew moom yàlla dogal na far mënu yàllaa ko jublu ci weer ko waaye mënutoon a ñàkk